والقلم وما يسطرون ne sunu mbokk sëriñ Abdoulahi Seck mooy ñëw présenté waat ñu candidat yi waaye ñi ñëw ñoom ñëpp bind nañ ñëw nañ ci waxtu wi waree ñëw liñ leen joxit bind nañ ko ba àggal delloo ko jury bi jury bi yóbbu ko fa mu dal corriger ko fa diggante démb ak ci guddi gi xëy àggale li ci des war a ñëw nag gaaral leen li nga xam ne mooy résultat yi incha allah kon sëñ Abdu man ngaa ñëw euh, présenté ñu candidat yi boo noppee joxewaale résultat yi ñu wax ne ki nga xam ne mooy parrain bi Thierno Alpha Niang Mohamad Alpha moom mooy jox ki jël première xamaguñ kum doon nag. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ci turu yaatal mbindum alquran ci njiital kilifa ga muy alaaji sëriñ Seck ak ñi mu ko àndal ñépp ak sëriñ Xaadim Njaay ak ñi ko àndal ñëpp ñu yebal nu fi depuis barki démb ba nëgë nii ñu ànd ak yéen liggéey bu tedd bu sell bii ànd ko ak su mbokki yii nga xam ne ñoo mokkal alxuraan di mutasaabiquun yi candidat yi nañ ñu baal jóg ngir wormaal leen màggal leen muy ñii doon bind alxuraan nañ jóg ngir màggal leen allahu akbar allahu akbar jërë ngeen jëf yayoo nañ lu ne ci bépp taraanga ndax ay nit lañ yoo xam ne ni ko sëriñ alaaji njaay waxe aayatum bayinaat fii suduuri lasina utul ilm kon ñooy ñoom ay boromi xam-xam lañ yoo xam ne ci li aar alxuraan di ko sàmm jumtukaay yi ñoom ci lañ bokk muy seen dënn yi seen dënn yi am alxuraan nga xam ne fu ñu leen ko bindoo bindloo ñu mën faa bind te duñ ko xool kon loolu ndimbalul suñu borom la ñu ngi tolloon ci fukk ak juróom-ñett la waroon a doon biñ demee ba ko leen ñoom ñëpp woo leen ngir ñu war a bind si fukk ak juróom ñoo teew muy démb bokk na ci. ñi teewoon Mahmoud Dia bokkoon na ci ñi teewoon Mohamed Basir Sall bokkoon na ci ñi teewoon Mohamed Thiam mën naa jóg taxaw ñu gis ko bokkoon na ci ñi teewoon Mansour Thiam bokkoon na ci ñi teewoon Umar Sy bokkoon na ci ñi teewoon Mohamed Tidiane bokkoon na ci ñi teewoon xaasimu ba bokkoon na ci ñi teewoon Moussa Abdoulaye Kebe bokkoon na ci ñi teewoon Hadi Diallo ma nga jóge ba Tamba bokkoon na ci ñi teewoon Mohamad Ban bokkoon na ci ñi teewoon Abdoul Wahab Sall bokkoon na ci ñi teewoon Saïd bokkoon na ci ñi teewoon Abdoulaye Abdoulaye Sall bokkoon na ci ñi teewoon Mouhamad Sam bokkoon na ci ñi teewoon Abdoul Aziz Sall kon noonu lañ tolloon ci ay candidat yoo xam ne bañ ñëwee comme ni ko ni ko ñu jiitu ni ñu waxee muy dañ leen bindal ci alxuraan fu ñu neex teg def ko ci enveloppe bañ dikkee ñu ne leen jëlal kenn ku ne jël bu ko neex boo jël rek lam tombeel loolu nga bind bind ko ba mu àgg nga dem sa yoon ñun commission bi ñu toog topp ko may leen ay point kenn ku ne war a am 100 100 yooyu loo manqué ñu dagg ko bañ ni ci raw daal ñett ngi raw kon lii mooy résultat yi troisième bi ci la ñuy njëkke ki jël troisième moom it société C3S jagleel na ko deux cent mille kon troisième bi mi ngi tudd Abdoulaye Sall numéro am 77 989 70 98 mi ngi am 87 virgule 75 Abdoulaye Sall moo jël 3 kon ki ko war a jox cadeau mën na cadeau mën a ñëw. am na deux cent mille moo nekk ci enveloppe bi ak cadeau yu ko C3S jagleel xani an lëkk deuxième bi it mu fattish moo ko jox cadeau deuxième bi ñu jàll ci ki jël deuxième moo ngi tudd Mohamed Tidiane Ly Mohamed Tidiane Ly numéro 77 789 23 73 mi ngi am 94 point virgule 50 94 virgule 50 li ñu rawante bëriwul. kii bi parrain bi ko jox très bien 94 virgule 50 moom it c'est 3S jagleel na ko 300 000. ak cadeau yooyu yooyu mu àndal yépp nag kon ki ci des parrain bi moo koy jox cadeau mën naa yëg parrain bi mën naa jege si Thierno Ahmed mën na jege si jox première bi cadeau kon nag ki jël champion bi mooy première bi mi ngi moom la ñu tudd moo ngi tudd Omar Sy 78 349 58 29 kon kooku moo jël première C3S jagleel na ko 500000 téeméeri junni moom la am comme cadeau ak i bagaasam moo ngi rawee ñi raw mi ngi amoon ci point moom loolu la bu ko defee li ci ñi des it dañoo am ay karo ñu xool ñi leen koy jox Cerno Salif jàlloo Diallo Cerno Salif Fati Diallo war naa am ku mu jox ko da Mahmoud Dia Mahmoud jaa ñoom ñi ci des nag c'est trois kenn ku ne jox na ko enveloppe cinquante mille kado yooyu nag yéen kilifa yi teew am na ci ñoo xam ne ñoo ko war a joxe Mahmoud Dia moo jox Mahmoud Dia Thierno Salif Diall Paate Diallo kon kooku moom jagleel leen ko cinquante mille Mahmoud Dia Mohamed Basir Sall moom it njiitul centre bi bu fekkee mi ngi fi directeur centre bi Abdourahmane bu fekkee. waaw Thierno Abdourahmane wan kon na ko jox kanel Thierno Abdourahmane wan gaa jox ko kadoom Thierno na ko jox kadoom Mohamed Thiam nawaaj Mohamed Thiam Thierno moo ko jox kadoom Mansour Thiam Thierno Omar Ka Bun Omar Ka Thierno Bun Omar Ka Xaasimu Ba ana Xaasimu Ba ñoom nag kenn ku ne ces trois sas bi nga koy jagleel cinquante mille mboolem mu tasaabix bu bokk rek fas baba Moussa Abla Kébé sëñ Alaaji Njaay nii moo koy jox kado kooku nu mu tudd waaw xaasim ba ayo Ceerno Omar Kaj Alaaji Njaay Seex Ndindi xaasimu ba Alaaji Njaay Seex Ndindi na ko jox kado Adi Diallo Adi Diallo bismillah sëriñ maam Seex Njaay ma ko jox kadoom Assome Ba na ko jox kadoom Mouhamad Ban Mouhamad Ban ana mu Ban na ko Cheikh Tidiane Sall jox kadoom sa Ahmad Tijaan na ko jox kadum Sahid Sall Sahid Sall anamu Ceerno Mouhamadou Sàmm Ceerno Mouhamadou Sàmm anamu ana Ceerno Ablaye Kebe moo ko jox kadum mi ne Mouhamad Sahid Sall

Abdoul Aziz Sall jege sil lii moo ko jox Abdoul Aziz Sall amat lii moo ko jox kado euh, Mansour Sall kon mën na ñëw kon dafa mel ni liggéey bi noonu la deme woon ñoo ngi sant ñépp di gërëm ñépp di leen ñaan ngeen taaxeer lu tuuti xéewal yi ñëw ñu bokk xéewlu julli mën a delluwaat ci kër ya wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi jéggalu tuuti rek ndaxte liggéey bi bu fekkante ne dem na ba egg fii dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo taxawoon bokk na ci ñi tax liggéey bi mu mën a sottee nii euh, kon bokk na ci ki ci jiitu mooy euh, directeur centre bi monsieur Adramane Diallo ñu ngi koy gërëm ndax saa buñ ñu dikkee ci mbiru alxuraan. lépp loo xam te jàppale ji ci centre bi rek ndax dañu koy mettre en notre disposition kon loo ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ah démb tamit eh, final bi ñoo ngi ko defee eh, moo ci mooy jumaay tandaa ji tantaa ji fa lañ defee kii ba ñu waa ja waa jumaa ji jàppandal ñu ko tamit lépp fa ko def ko defee kon tamit ñoom tamit ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax ah daayira waa Kër tubaab bi nga xam ne ñoo nekk diggante Matam ak gi daaw ak ren yépp mbooleem xéewal yi ñu togg ci bisu tey bi ñoom ñoo koy togg ñoo ko taxaw mbooleem kafe gi mbooleem ndox mi mbooleem lépp dañoo bàyyi seen liggéey ak seen yitte di ko ànd ak ñun ngir alxuraan ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax di sant xam ne lii rek lañ mën a def ñi ngi gërëm tamit mbooleem ñi nga xamante ni ay kilifa lañ te alxuraan ñor leen daayira ndey daara yi nga xam te ni daaw nii lañ ko ànd woon ak ñun ren tamit ñi ngi ñëwaat toog ak mbooleem kilifa yi nga xam ne yom ñëpp ñëw nañ fi teew ñoom tépp ñi ngi leen di gërëm waaye nag di beral ngërëm ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ fekk fii di Matam mu di Ahmed Tidiane ak euh, Ousmane Dia ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax lépp ñoom ñoo ko def ñun dañoo xaar ba lépp pare rek ñu ñëw ànd kook ñoom ñoom ñooy représentant yaatal mbindam alxuraan fii ci gox bi mbooleem lu ñuy def ci concours bi moo xam dépp candidat yi moo xam lépp kon ñoom lañ koy àndal nekk seen ginnaaw ñoom tamit seen taxawaay ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax duñ fàtte tamit c tamit mu du fàtte ñi nga xam te ni waa commission scientifique nga xam ni concours ba li tàmbalee ci njëlbeen ga ba ba final bu mag ba di jeex ñoom la ko Cheikh Bara Ass di àndal muy waa comité scientifique te ñu leen fi teewal tey jii mu di sëñ maam Cheikh Ndiaye ak sëñ Alaaji Ndiaye ak sëñ Abdou kon ñu ngi leen di eh, sant bu baax a baax niñ ko waxee rek ñu xaar eh, xéewali pare na eh, dañuy dem ci saal rek incha allah ñëpp toog ñuy xéewalu soog ko mën a dem incha allah. من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه wa annahu ilayhi tuhsharun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض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 wa yamkuruuna wa yamkuru allahu wallahu xayrul maakiriin sadaqa allahu al-aziim maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun